sax moom la amee libération di dellu si waat ci coow Rose Wardini bi nga xamante ni jamono ji mi ngi ci loxo yoon ñu gàll ci ndoddam ñeenti mbir bokk na ci escroquerie ci wàllu jugement ak faux en écriture authentique et publique journal bi diñu xam le ni am na yeneen i mbir yu nga xamante ni daal nañ koy découvrir ci ki nga xamante ni moo di Rose Wardini jamono ji ñuy wax ak yéen nag mi ngi ci loxoy yoon docteur Cheikh Tidiane Dièye ak professeur Daouda njaa ñoom lépp luñ leen doon waxal ñoom weddi nañ ko ba mu set dindi bépp tuuma daal di teg nee te jamono jooj nag vox populi diñu wax ni élection yi boo moytul ko tox doxal ba jimmi jamono journal bi dina xam le ni ak lu luñ ci mënti am njiitu réew mi président Macky Sall dina leeral xelu sénégalais yi tey bu mi di jotee ca jamono jooj nag parti démocratique sénégalais ñoom dugal nañ benn proposition de loi ci assemblée national ngir ñu dàq élection yi député yooyu nag tey ci suba la leen convoqué ca mu ndaw réew ma Thérèse Faye moom nag mi ngi jàppale ñi nga xamante ni nag ñoo di waat parti démocratique sénégalais li mu bëgg moo ñu toxal élection yi ci diiru juróom benn weer journal bi il midi moom nag li mu xamle moo di lépp dina leer tey bu midi jotee ndaxte njiitu réew mi président Macky Sall dina jàkkaarloog askan wi wax ak ñoom ñetti dëggam Rose Wardini ca jamono jooj nag surnaal bi dina xam leen mi ngi ci loxo yoon parti démocratique sénégalais ñoom nag li ñu bëgg moo di ñu toxal élection yi ci diir juróom weer ca jamono jooj nag toxalu élection yi di lëmbee réew mi Walf Quotidien moom nag dina xam leen ni mbir yi nag ay waxu naka sandang kese la mu ñuy xam leen ni parti démocratique sénégalais ñoom ñoo bëgg ñu toxal li nga xamante nag moo di élection présidentielle yooyu la campagne électorale bi nga xamante ni ëllëg la war a tàmbalee bés bi la jour dina xam leen ni mbir yi nag dara leeragul ci bopp sénégalais yi ndax élection dina amam déet te jamono jooj nag yenn candidat yi na noo dem ci RTS di enregistré li nga xamante ne nag moo di ñetti minutes yi nga xamante ne ñoom lañ leen jagleel ngir ñu wax ak sénégalais yi Macky Sall nag laataa loolu démb la dalal candidat bii di Amadou Ba laataa moo dem ci RTS sax di enregistré temps d'antenne am jomaay président ñu ngi yooxu di xam le ni dañ leen war parti démocratique sénégalais ca jamono jooj nag journal bi dina xam le ni ñoom déposé nañu benn proposition de loi foofee ci assemblée ci diiru juróom benn weer journal bii di enquête yéen kaay dina xam ne ni askan wi yëpp aj nan seen nooy di xaar njiitu réew président Macky Sall mu tënk wala mu yeewee askan wi waaye nag lépp dina leer tey bu midi jotee journal bi ba léegi mu ñuy xamal ni njiitu réew président Macky Sall démb dal na sekk am Seck a Mbengue Ndiaye Amadou Ba ak ñeneen ci palais de la République assemblée nationale tey jii suba nag danañ daje dina waxtaane li nga xamante ni moo di toxalub élection yi jamono jooj nag Idriss Seck bëgg dal am ci réew mi moom sax loolee lay woote xam le ni campagne bi naam ëllëg lay tàmbale waaye ba léegi dara leeragul ci bopp sénégalais yi ndax élection na amam déet njiitu président Macky Sall moo war a yeew li nga xamante ne nag moo di askan wi tey ci midi la war a doon moo tax bureau assemblée nationale convoqué député yi tey ji suba Guy Marius Sagna ci 24 a kaay dina xam le ni njiitu na si a kaay dina xamal braquage armé yu am ca Kédougou ak Cap Skirring ay Samba Boy ñoo faat juróom benn doomu aadama foofee ca Cap Skirring ak fa nga xamante ni nag moo di ca Kédougou foofee ca Cap Skirring benn kër lañ dugg daal di sàkku jànq bi nga xamante ni moo fi doon liggéeyee far gardien ba ba noppi taal kër ga libération yéenekaay dellu siwaat ci immeuble ñetti étage bu daan woon foofee ca xaar yàlla su journal bi dina xam le ni ñeenti doomu aadama daan nañ leen di teg loxo xibaar bu tiis moom la yéenekaay bi di libération yeewoo mu di Fatou Cheikh Koulibaly ñu gën ko xamee ci groupe Pape et Cheikh Saad yéenekaay diñ dellu siwaat waat ci bilan bi nga xamante ni Sadio Mané moom la def ci CAN 2023 nee na benn bit la dugal am ñetti passe décisive yu nga xamante ni moom joxe na ko nee na Sadio nag matcham bi gën a am solo bi nga xamante ni moom la def mu di matcham diggam ak Côte d'Ivoire sunu làmb dellu siwaat ak ñun ci combat Tapha Tine ak Balla Gaye munu na ma amal ñaar fan ak benn ci weeru sulet Balla Gaye jamono ji nag mi ngi ci INSEPS